fi nekk doo ñu ibbil. man tax ngeen soxor rek. ah li tax ngeen soxor. xam nga ne paka booy melut nii de. Ah. paka booy bi moo ñu njëkk nan dem ah nan soxor la. yaa ngi wax ak moom Fatou ah? la nan dem. paka booy eh. yor naa numéro naa ko woo nag ne ko bi nga bàyyi fii ku soxor la. xoolal xoolal. waaw Seck man damaa sonn naa. ah déet kii soxor waay. wuyu ma juróom benn kër fi ñu dem yëpp da ngay woote man man damaa soon naa jaa ah. damaa sonn de wooteel doo woote. jar nga ñuy laala laa la wax. waaye Cheikh wooteel. nga ñuy xullee. wooteel. Ah. Ah. rek nan nan nan kër diw. wax na ma ma jaar fa. non ah, doo jël rendez-vous baax. non déet déet jël baax. ma baal buntu kër jàmbur bii. ah so déet jël bu baax. eh wooteel. wooteel ma damaa sonn de da ngay woote bañ na la maa fa. ñu dem. asalaamaaleykum. waaye ñoom di fukki ci buntu kër rek. mbaw may ma. may ba ma coupé. waaw wooteel rek. nga baal ma de. Fall na def. yaa ngi am jàmm. alhamdulilah. <laughs> moo ne ñu ngi sa buntu kër de ñu ngi sa buntu kër nii <laughs> ah. yaa nga aéroport. ah yaa ay raxas avion yi tey ah. biir ba déet yow kay yow li lay doyee kay jaru ñu koy laaj. ah nekkoo fi kay nekkoo fi ah ah waay. Ah. xaalisu crédit bi moom jeex na. Ah, ah. xaalisu crédit moom non non waay. Ah. asalaamaaleykum. <laughs> na nga seli étude. alhamdulilah. <laughs> Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Yang ini setan. Wallahi, kamu dun mau waktu kial nih juga di di di di di di di di di di di di nah deh, wow wow wow wow Yang seker ni nyung si pun seker gini tahu. Ah? Farah Kupel, kupel, saya kupel. Ah, yang nyakain kadang France? Saya kupel. Ah, wah wah wah wah bahna.

Cheikh xam nga ne Mass voyage na bu yàgg. waaw waaw baax na baax na. lu ngeen waxati eh, Mass nag. wala nga am ma téléphone moo woote ma. ay waay ay waay waay waay waay ay waay. nga ma al téléphone moo woote. nan sono suñu xel rek ba xam. Seydou. Diouf a jox ko waay Ndioufène bi. moom de heure boo ko woowee muuyu. Ndioufène bi. ah asalaamaaleykum. <laughs> Diouf Diouf Diouf nekk Mbow gi Mbow gi sax. <laughs> Mbow PPC ma ngi. ah Mbow PPC ngi. man PPC ma ma ma ma wa. waaw. <laughs> xam naa ne nga nu <laughs> waaye dañuy préciser rek. moom xam nañu moom. na nga def. moom boo ko war a xam. Diouf na nga def. ba am nga jàmm. ndiir dey. ndiir de mu ngay raxas permanence ba rek mu wax wallahi jambar la Mom. ali wallahi wallahi jambar la ma ne nga kër ga ah bureau ñu ngay ñëw Diouf ñu ngay ñëw. sekk Mbaw nan dem ki ñu woo kilifa la ah déet déet déet ma ne nañu fekk ko bureau ah. ah. waaw nañ ko Mbaw waxul ta wax ji waxul wax ji rek Seydou kilifa la. na nga def. alhamdulilah. alhamdulilah. baarikallah. na ngeen def sama gaay wallaay ñu ngi rek ñu ngi rek Diouf ñu ngi sant yàlla bu baax di góorgóor mu nañ koo woo rek mënuñu mm. maa nga Côte d'Ivoire maa Nigeria waaw <laughs> wala Tunisie ah waaye waxuñu loolu de gëj gis wallaay dëgg la tam xarit daaw eh. mm-hmm. waaw tam xarit daaw. ah laa. Ah. Eh, wallaay. moo ne waaye gisante dañ laa mënut jot. waaw. waaye. waaye bari na yoo xamante ne nii jëm nañ la jot ba sonn. Mm-hmm. waaye gàttal koor yi yi xamul ñun. Mm-hmm. ñoo sonn. comme que Sarr sax moo moo ñu wax ne. Ah. comme que comme que dafay adébal. handball. waaw. maa ngi woon fii di fi def championnat d' Afrique. waaw. Afrique yëpp ñëwoon wuyu si Nyi ngi Esan woon de. esaan nga Jamnya aja juuf gii. jam ñaajo. bu jam ñaajo bi la. wa wa. waaw ñam sekk moy bañ te am ñu auto. Wa wa wa. bañ nañ ko ba ñu ñu doon toog ca ca ca ca ca ci national ya. ci indi yi voilà di wax ne carte bi moy carte PPC. jël len ko moy carte bu baax. beneen carte boo ngir bu ne baaxul. ku laajte PPC. ma lay orienter ba ca ba ca fa nga wara. a. mu ngo. ak doon la xam nga waaye léegi yéen moo fi doonoon seen tànk tey. li li fi suñ tànk nag lu tiis la lu métti wutaal Abdou mii dama wóor na réew yi. Oh. Abdou la jabar te nekk ca dëkk ba la jabar te ju ju kër ga dem ca marché ba ndugg ak jakarta ya ndugg ñu ne la ñu ngi hôpital. Oh. dañ koy autopsie. Oh, autopsie autopsie. Mbow Mbow. Hmm? Mbow. kon moom dafa dee. dee deewagul. waaye. kii kii mooy yow beeree noonu fii. scanner dañ dañ koy scanner waaw. nee benn faar gi wenn faar gi daal moo damm. ñu woo ñu sànq. ñu ne bu ñu yéexee ñëw bu ñu yéexee yónnee xaalis bi jamono am bi day dee du du du du du du du du du du du du du du du du du du jarul jooy. sama wóor la jarul jooy jarul jooy jarul jooy Massa Massa. Massa Massa Massa Massa Massa. danoo yàgg. léegi pour faj ko. ñaata mooy doy. laaj na lu xaalis. fukki junne ñaar rek. ëpp na fukki junne ñaar. Oh. man lañ woo maa yor ordonnance. neen ma ci ñeent fukk ñeent. ñeent fukki ñeent fukki junne ak ñeent suñ ko yónneewul léegi noppi leen bàyyi leen jooy bàyyi leen jooy metti na waaye bàyyi leen jooy lii lii xeet naa ko lool su ma sañoon moom ko téeméeri junni moo nekk nii ah, ah, ah, waaw <laughs> xam nga jakarta bi sax mbaw euh, daam bàyyi ci jakarta bi <laughs> gone yi mënuñoo dawal mën noo dawal mën noo dawal nekkul sax maanaam sama soxla weere sama takkoo la rek day génn rek waaja yenu ko bu maanaam dugg ba ci biir ba ci biir yaram wax toj kooku faa laal rek ci li ma wax ci téléphone waaw ñoom yëguloo yëg rek waaw léegi ñoom waaw waaw jërëjëf ñun léeg-léeg sax ñëw ca perméable ba permanence waaw waaw waaw permanence ba àll ndir mu ngi fay def liggéey bu am solo ndeysaan moom raxas ba mu set wallaay dëgg la raxas ba mu set réew mi nag moom duñ ci yem jërëjëf boo bëggee réew mi ak bitim réew yëpp ñu jox la ko bu soobee yàlla jërëjëf Pepe jërëjëf Diouf jërëjëf na yàlla defal jàmm li nga bëgg yaa ko xam ne la ko suñu borom defal réew mi ak bitim réew yaa ko moom di nga falu ah gën leen kàddu nga falu ah